Tamam. ci màggal bi jógee ci mu doxal ci ndax mu doxal ak suñu benn jógee ci ndam la ñu woon di ak siyaar ñu jógee ci mu doxal rek moom jógee xam-xam yi ak taaru bu nekk waaye ñoo ñu ngi siyaar ci bu baax a baax ndax di sa taxawaay ci yoon bi liggéey bi rafet bi jël mënu ko dëgg ko dëgg bi nekk aussi ko siyaar di sàppoon ñaan bu baax a baax nga xam ne ndaw la ci ëpp ci réew mi am nañ benn yaakaar ñun ñu ànd ak ñoom lépp njaboot ñu leen ko gën a dénkaat di sàkk ci ñaan bu baax a baax te am nañ ci moom yaakaar ne yaakaar bi moo nekk yaakaar bi ñu leen gën a dénkaat ci lépp ñun ñëpp xam nañ ne def kenn dégg ko ci tey jii bu fekkee ne ñoo ko jaral ba jóge Dakar ñu déglu gis suñu ko dalal ko ñaan na ko ci dina ngi lay siyaar bu baax da nga xam ni tey ji yaa yor kàddu Sëriñ Tuubaa Cheikh Mamadou Bachir Cheikh Abdou Khadim Mbacke imam di représenté suñu jëmm ju baax yi ñu àndal muy président Ousmane Sonko tey jii mu jóge woon Dakar nii ko suñu Cheikh waxee ñëw si say mag ñëw si say xarit ñëw si say soppe ñëw si dëkku maam bii nga xam ni moo wax ni juróom-ñett fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sax saa yi ñëwatee na doon mbégte mbindeef yëpp fépp waaye nekk ñu sant nañu yàlla gisam bopp loolu nag Mbàkke ngay nitu ñëpp ndax yaayal kàddu si am ma dul Muntaqa loolu nag doy na sëkk ndax kàddu ci làmmiñ lay jóge waaye bala moo jóge ci làmmiñ ci am xel lay génne bala moo génne ci xel ab xol moo koy tàggat nga mat sëkk li nga doon jëm ji àndal ñu am ci moom yaakaar am ci moom confiance am ci moom gëm-gëm mu nit koo xam ne nii diine lislaam da koo ñor ci fànn yépp nag ndax lépp loo xam ne nii diine ma nga ca nee na dugal na ci loxoom ba mu jeex tàkk muy doon koo xam ne nii dafa wax ni réew mii nu nekk ñi tax mu bàyyi ab lalam bàyyi ak njabootam bàyyi ak léppam ñëw fas yéene tàllal loxo réew mi ñu teg ko ci ay loxoom mooy dafa wax ni réew mii de foo laal fépp ngi metti ndax lu fukk bokk ñett bëgg koo aakimoo wala ñaar loolu tegoo ci yoon moo fa yéene tàllal askan wi loxo waaye nag ñëw fii ci Sëriñ Tuubaa Xaadimul Mustafaa mi nga xam ne mooy yaakaar jaam ñu tey ak bu ëllëgee ndax dafa wax ni yaa maalikal mulki yaa man jalla nawat yarham jamial waar kon ñëpp nga ci biir kon Sëriñ Tuubaa moomee lañ ñëw tàllal si suñu loxo ci bisam bi nga xam ne nii dafa ni képp ku fi ñëw aajo joo fi ñaan suñu borom fajal la ko moo tax ñu ànd président Ousmane Sonko ñu jóge Dakar kenn ku ne ci gox yu fasantikoo yi jóge fenn fu ne ñu ànd ak moom ñu dem ci Cheikh Mamadou Mountakha mi fi nekk Serigne Touba dem ci ay rakkam ku mel ni sëñ Cheikhoum sëñ Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu dem ci njaboot gi yëpp yow nag Mbacké yaay yoon ndax ci borom yoon yi moo la dénk yoon yi kon mënuñoo génn Touba mukk te Mbacké ñëw ñu ci yow xanaa li ñuy wax kay di jéggulu guddee gi guddee ñëw ci yow waaye yow moom Mbàkke nangu nga ñu lépp euh, di la seedeel nii ab taalibe ndax sa diggante ak sëñ Mbàkke am naa la ma ci xam te moom la doxal ci diggante moom ak sëñ Tuubaa nit koo xam ne nii tamit ku neex àndal la ndax jukko yu rafet li ñu gis ci moom kon Mbàkke président nee na mi ngi lay nuyu asalaamaaleykum wa rahmatulah. Euh, sëñ bi asalaamaaleykum sëñ bi président nee na asalaamaaleykum wa rahmatulah. Eh, ngi leen di nuyu eh, di jaarale ci mujjee seen loxo wala di fekk seen loxo suñu nuyoo ci waa dëkk bi yëpp. Eh, ñu wax daaw waroon nañu wax sax jaaral nañu si yéen suñu nuyoo ci ki nga xam ne mooy kilifa dëkk bi ci kilifa yoon gi di sëñ. Mbàkke yàlla ko yàlla may wér may ko suñu kanam du yàgg yàgg donte gisee nañu ak moom tey ak waaye tey eh, yéen yàlla def yéenay mutakallim mën nañu jaarale si yéen loo xam ne dafa war a mën a yegg ci ñëpp di am mbégte teewati fi ren ji ñaan yàlla may ñu teew ko at yu bëree bëri ñi ñëpp ñu ko teew ñu ko teewewu ñu koy seetaan Euh, ci lu màgg lii ñuy dëgmal muy màggalu jàmbaaru islaam cheikh islaam wala euh, cheikhul xadim nga xam ni li mu def ci yoon bi def ko ci su ma nee yoon bi nag mooy diiney islaam euh, du ma ne kenn def ko ci de waaye gëw ma ni ñi ko ci ëppale mën nañ leen lim def ko nag ci teg tànkam ci e, jël léppam jébbal ko ki nga xam ne mu la yàlla yu noonu si ñun mu yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam daal ci jëf dundam yëpp daal ci consentir ay sacrifice yoo xam ne fu ko tegoon ci ñun defe naa tey say sët e, duñ leen e, duñ duñu fekke ba tey ñu egg fii ñu egg mm-hmm. ndax natt bu ne dund na ko ci génne nañ ko réewam euh, tëj nañ ko bunduxatal nañ ko waaye lépp mu des ak ngorom des ak diineem xam lan mooy mission am ba tey looloo ko may lii wax naa sànq ni dëkk bi ñu toog tey toog ci salle bu neex bi mu climatisé defe naa ci gannaaw ay bukki fi ne woon ak ay golo waaye amul woon lii tey mu nekk la deuxième ville di Sénégal kon loolu dëggu ak liggéey ngir yàlla kese moo ko may mu war a doon nag misaal pour ñun ñëpp ba tax suñu ñëwaatee teew ci lu mel nii dañuy am mbégte bu rëy rëy xam li ñuy màggal lu doon waaye surtout bañ a fàtte enseignement yi ci war a jël surtout nag ñun ñii di yëngatu di woote ni dañoo bëgg luy defar ñuy jaareel nag ci yéen suñu cofeel ci dëkk bi di ko jaarale di jaarale si yéen suñu cofeel ci yoon bi yëpp naam ci parti politique la ñuy yëngatu parti politique bi nag ñëpp a ngi ci diine yëpp a ngi ci tarixa yëpp a ngi ci xeet yëpp a ngi ci waaye tey boo ci doon seppi ñi nga xam ne dañoo bokk ci yoonu murit defe naa parti bi da cee def lu bëri ñu ngi ciy sant yàlla bu baax xanaa kenn ëppalewu ci te li tax ñu ànd ak ñun nag caaxaan taxul alal bu ñuy seenu amul taxul waaye dëgg ak njub bu ñu yaakaar ak message bi nga xam ne walla vision bi nga xam ne am nañu yaa yaakaar ni ñun ñoo war a góorgóorlu defar dëkk moo tax ñoom sëñ Cheikh Thioro ñii nga xam ne ci njaboot gi la ñoom Matar Seen ñii nga xam ne ñoom si seen bopp ñoo taxawal mbir mi ñoom Cheikh Aliou Bey ñoo ñëpp ñoom may mën a jël ñëpp Moustapha Sall nekk ci bureau politique bu parti bi euh, euh, te di ci def liggéey bu ñëpp gis ak ñi nga xam dañoo ànd ak ñoom ñëpp ñooy sëñ Moustapha ak waa Touba yi yëpp ñu àndal ci Pastef Touba euh, dañuy jaarale foofu wax ni dañ ñoo woon cofeel goo xam ne yoon bi de manière générale waaye dëkk bi ndax sànq rek wax naa ko bu ñu duggee ci dëkk bi surtout xew yu mel nii dañuy làqatu ndax li ñuy bañ mooy nit ñi def ko mbirum politique xale yi commencé woon nañ daw si ñëpp di rassemblé wu Sonko Sonko te lool lañ ci doon bañ mhm. cofeel googu nag dañu bëgg jaarale ci yéen euh, wax ni cofeel gu ni toll wala gu ko ëpp fuuf lañu am ci yoon bi am ko ci waa dëkk bi am ko ci kilifa dëkk bi te ñoom it ñu woon ñu ko bu baax a baax ndax su biñ duggee fi ba léegi ay kilifa lañu seeti ñu jël ñu def ñu doom mhm. di ñu ko won nag ci wax dëgg yàlla loo xam ne dañ ciy am sax kersa moom mm-hmm. kon loolu lañu bëggoon jàllale ci kàddu gàtt di wax ni ñu ngi leen di gërëm ci seen disponibilité mm-hmm. ndax xaw nañoo guddee euh, bi ñuy ñëw fii euh, dafa am lu bëri bëri bëri bëri loo xam ne dama naan at wu ne saa suñu ñëwee ci màggal dañuy gën a bëgg dëkk bi waaye saa suñu ñëwee ci Touba su dul jamono màggal dañuy gën a bëgg dëkk parce que dañ ñu ko dañ ñoo dañ yaatal ba ñu xam ne ñu ngi suñu kër. Mm-hmm. wax moo suñu dëkk waaye suñu biir kër la ñu mm-hmm. kon loolu amul lu ko mën a fay te bu amee te bu fekk yéen ñi di kilifa dëkk bi ngeen ànd ci ndax xam nañu fii nu muy doxee bu ñu benn kàddu rek bu jiboon defe naa kenn dootu fi tudd Ousmane Sonko mm-hmm. kon euh, ñu ngi leen di gërëm leen sant ci loolu damay faral di wax nag ci daaneel mooy euh, du péete la si suñuy ñëw. ñu péete ndax naam sax euh, kilifa diine dafa am cër ci réew mi am sañ-sañu nag ni nii laa gisee bu ko neexee mu ne ànd naa ak diw waaye ñaari li ci bëri njabootam lépp da ciy nekk tey jii lépp ànd ak man te bokk fii peut-être beneen leader politique bu fi ñëwoon lu ne toll dina fi ñëw te bokk fi <laughs> moo tax Euh, ñun bokk ñu ci ñi nga xam ne dañuy essayer pour féete ci kilifa diine yi waaye am nañu sañ-sañ nag moom kenn mënuñu koo bañal suñu ñëwee gannaaw bu ñu waxee suñu bopp ba pare dénkaane suñu bopp sàkku loolu am nañ sañ-sañ bi di leen dellu dënk suñu bopp bu baax a baax di sàkku saa su ne di wax ni nag nun nii rek lañu amul lu ñuy nëbb amul lu ñu làq du ñu lu ñu essayé def euh, li tubaab def manipulation wala yu mel noonu mhm. dañuy essayé nekk nitu neen nekk ay jullit di wax loo xam ne moo ne ci ñun lépp du ñu xalaat ni lii mooy dëgg ñu teg foofu suñu tànk mhm. def ko nag ànd ak tey ak dal ak yar noonu rek la doxee mhm. te jàpp naa ni euh, loolu rek mooy diine ndax yeneen ci ëpp xam-xam foofu euh, am na loo xam ne yeneen ko jàngal ci diine mooy teg sa tànk ci dëgg di dox ci loo xam ne day defar xadis dafa ne man raa minkum munkaran fa yughayyihu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi ba fu mu jeexee kon ñun ci loolu rek la ñuy essayé góorgóorlu leneen loo xam ne yitte la ñun amul leneen loo xam ne làmboo na wala làqu na ci li nga xam ne ñu ko yëngu amul bis bu ne ñu ñaan yàlla nag ñi bu dee am na lenn lu sell di ci suñu yéene ci réew mi yàlla ñu yàlla soril ci mbir mi wala bu mu mës a sotti wala bu mu tegu suñu loxo mm-hmm. yéene bu rafet rek mën nañu juum nag en tant que nit ndax nit matul waaye juum ci bonne foi du juum boo xam ne ay calcul wala ay yu ñuy teg mu ko mu kon ñu ngi leen di gërëm bu baax sëñ bi di leen euh, masawu coono ci fan yi mm-hmm. Mm-hmm. naa ni sollicitation yi bëri na waaye jar na ko ñu ñaan yàlla lépp luñ fi def yàlla nangu ko mm-hmm. yàlla may ñu dugg ci ci jàmm génn ci ci jàmm euh, wàññi euh, dàqal ñu accident yeeg yu mel noonu mhm. feebar yi nga xam ne moom la ñëpp ragal yàlla na yàlla def buñ ci génn ñu ne affaire euh, yokku na wala sax lu gën yàlla nañ ci génn mbir mi jaare noonu jeex tàkk comme wala senegal rek waaye adduna bi yëpp ñu mhm. mën a seen liggéey mhm. loolu daal lañu bëggoon wax ci lu gàtt ñu ngi leen gërëm leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah mbooloo mi Cheikh Mouhamadou Bachir nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu Ousmane suñu ba Cheikh na mi ngi lay delloo ak nuyu bu baax a baax nee ci ñu ko alxuraan santaane mhm. nee kon ñu ngi lay dalal jàmm bu baax a baax nee na ak mbooleem délégation bii nga àndal nee dégg na kàddu yi nga wax bu baax a baax nee dégg na ko bu baax a baax nee tamit rafetlu na kàddu yi nee na mi ngi lay sant bu baax nee te di la gërëm ndax nee na sa tànk yii de boo yemoon ko Cheikh Mamadou Muntaxa nee na mën naa yóbbaale ñëpp géew nee képp koo xam ne dëkk nga ci màkkaanum sëñ Tuubaa mi rek mën na koo yóbbaale nee na kilifaam ci des yi nga jaar muy sëriñ Cheikh mu sëriñ Saaliw nee na boo fa yamoon rek doy na sëkk nee na ba ci sëriñ Mahamad danum sëriñ Abdoulaye ñii nga jóge ak Cheikh Mamadou Fadel moom sëriñ Chouaïbou nee na kenn ku ne moom na demee ak moom nee na moo yow rek boo fa duggoon rek nee na nga yam fa dong doy na sëkk day mel ni agsi nga ci moom te nee na loolu de mooy dëgg ci moom nee na waaye boo yëkkati waatee say jéego nee ni ko defee woon daaw nee nga defaat ko ren mu tombee waat ci waxtu yi nee na loolu dafa am lu muy tegtale kon ñi ngi lay ñaanal bu baax nee ñi ngi ko waxee nee dégg nañ kàddu yi bu baax a baax nee tamit rafetlu nañ ko bu baax nee ñi ngi sant mbooloo mi nga àndal yépp nee suñ Cheikh Thioro mii di doomam nee na moom dong bu nekkoon ci yow doy na nee na Cheikh Mamadou Moustapha mi nga àndal tamit nee na maam sëñ Mandumbe Xabbaan ñu gënoon a jàmbaar ci yoonu sëñ Tuubaa wii ci la bokk ak sëriñ Modou Xabbaan nee na ñooñu nañ seen taxawaay bu baax a baax nee ñi si des ñépp nag te tudd leen nee na bu toon loolu lépp tamit nee na aw askan de boo ci jàppee kenn dong nee dafay mel ni téye nga ñépp nee na sëriñ du Mbacke moom sëriñ Cheikh Khady nee xam nañ sa diggante yow ak moom nee ndax de moom fu mu toog wax ko nee na àdduna bépp xam nañ seen diggante te nee na sëñ Abdou Mbackeem sëñ Cheikh Khady nit ku baax la nee na nit la koo xam ni tamit nee na moom Cheikh ba Bassirou li mu xam si sëriñ Abdou nee na de sëñ Abdou Mbacke du ànd ak kenn ngir àdduna. nee ci ay principe rek lay ànd ak nit. nee kon sa digganteeg sëñ Abdou ni mu demee. nee ñoom ñëpp bokk sëñ Touba tàbbi ci biir. te nee na loolu de mooy dëgg bu wér. kon nee na ñu ngi rafetlu bu baax. jéego yii nga jéego ñëw ci moom. nee di ci sant tamit yàlla bu baax. nee na bis bii nga xam ne. nee na ñëw nga ànd koog ñun. ndax nee na xam nañ waxtu wii ni mu xate ak fi àdduna si toll ndax nee liy wàcc si àdduna si nee kenn xamul lum doon te kenn mënu koo nag tamit kon ku jël sa yéene ju rafet ak li ci nekk lépp nee na calculoo dara nga ñëw loolu xam na nam toll moo tax bi muy woote nee na na ko waaw ndax dafa wax ni ñaari xaaj la nee na li jiitu nee mooy pësteef suñu diggante ak Serigne Touba nee na loolu de ñun ñii la engagé ndax nee na adduna de boo dee natt dafa leen waxoon ni màggal gi nee na fi àgg ci doomu aadama yi dafa sori ndax am na ñoo xam ne sëriñ bi jaral na leen seen bakkan daanaka ñëpp nag nee na loolu nag ñun ñi gëm. nee na foofa la nekk ci sëñ Touba moo taxoon ñu nekk bitim réew ak ambassadeurs yi ñëpp jéggal nañ leen ndax nee na bëgguñu leen a lor ndax nee ki nekk ci xaal boobu de dafay sori nee na mooy li ñuy dund ñun ndax dañuy waxoon na ko ni dañu ko nee na màggal Touba gii ngeen wax nee na taalibe Sëriñ Touba yi nee na fa nekk de dafa sori. ndax nee bu ñu jàppee ni wéré digi dafay tasaaroo. ñee na ñoom de seen pëstéef fa mu toll. mooy képp ku dugg Touba mucc ca jàngoro jooje. nee na ki nekk foofee. nee na booy waxee moom dafay xaw a jafe. te daanaka nag ñëpp nag fa lañ ne. nee na yàlla nag suñu borom moom. nee na lu ko neex def. Mhm. nee na nguuram gii de seq ko kenn. nee na séddewu ko kenn tamit nee na suñ borom de mooy def de mooy dindi lu ne tamit mooy xam na mu koy defee nee mbirum sëriñ bi nag nee dafay xar baax nee na xar baax nag nee na saa yoo ko bëggee xam nee na danga koy jaare fu dul baax waaye boo ko fa jaaree lu doog xam ndax nee na bi ñu ubbi jumaa ji nee fii ci Touba. nee dañ ko ubbi rek nee na wéré di gi wàcc kon loolu li dee dogalu sëñ boroom la ndax nee na sëriñ bi ba mu koy def xañ na basiiram àgg na fa waaye kii nag ci am xel nee na loolu di mënu koo xam waaye dañ ko ubbi rek mu wàcc nee na muy gën a wàcc nee na jàkk yépp di julli nee na muy gën a wàcc dem ba daanaka mel ne amatu fi nag nee na laaj na ko ki jiite médecin chef bi. nee na lu toll ci weer. mu ne ko nu ngeen natte. mu ne ko nu ngeen natte. ba yaakaar ni moo tax wéradi gi wàññeeku ci dëkk bi. ba yaakaar ni moo gi wàññeeku ci dëkk bi. mu ne li ñu jàpp de mooy waa dëkk bi dañ koo gëmul. wala. wala nanguwu ñoo def ay test. wala ku gis ci yow màndarga wi. buñ la bëggee test sax nga bañ. moo tax te te liñ moo tax liñ teste ñoom rek moom rek lañ mën a gis. nee na moo tax mu néew a néew. waaye ma ne ko waaye bu fekkee loolu am na. kon nit ñëpp dana war a faatu. sëñ bi dafa wax ne jàngoro moom boo ko nëbbee nag mu weer la. kon dafay mel ni réalité bi. adduna de joxaat na ko dëgg. ndax nee na saa yoo toogee weer ak nangam. nee na gisoo kenn faatu. hôpital yi tamit kenn tëddu ca. kon li nga mën a jàpp sam xel mooy mooy amatu fa nag nee na màggal gi tamit noonu moo tax sëriñ bi de li mu santaane ndax nee loolu kat ngëm-ngëm le waaye nag suñu borom tabaaraka ko taala dafa am nu mu tërale àdduna nee na boo xuusee ca lool nee nag da nga daay bàyyi sabab bi te sabab bi nag mënut a ñàkk sabab bi mooy lii ñuy def mooy wattandiku gi ak di sàmmonte ndax ne laa dara la wala diraara nee na loolu suñ borom moo ko wax nee na ndax nit kat wër taxaru nee na mooy di ndax day diggante bu xataxat nee na moo tax nag contexte boobu ku ci ne ku ci ñëw ku ci ñëw nag war ngaa xam ni mu toll xam nañ ni mu toll kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax nee na di la gërëm bu baax nee tamit di la ñaanal bu baax suñ boroom jàppale la nee na tey mi dimbale la nee sant nañ bu baax nee xol sedd na nee na ñu ngi